bokki jullit yi bokk yi ma bokkal lislaam ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci ab yonantam Mustafa alayhi salaatu wasalaam maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan di gisal ci ñëw bi alxalifatul aam li taifatil muridiya Cheikh Muntaqa xafisa ulla awara di wax suñu boroom ni ko alhamdulillahi lasi bi nicmatihi tatimu saalihaat mbokki jullit yi sant naa leen dayab sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem cantuk xol ak cantuk làmmiñ di jiital ci cant googu Cheikh Mountakha Mbacké ndax bi yàlla dogalee mbir mi xew bépp taxawaay bu ko war waxuma sax bu ko war waru ko da koo def ci wuutu gu mu wuutu sëñ Tuubaa donn gu mu donn sëñ Tuubaa firi bayitu sëñ wa jëfam ji mu jëf ci xew-xew bi tegtale na ko ndax ba sëñ Tuubaa ne waj al bi jaa il muntaqa ayaati riayatal quraani sil ayaati yow suñ borom nang ma def man sëñ Touba ma nekk gardien wu alquran diirug sama dund yow sëñ Touba yow suñ borom man sëñ Touba nang ma def ma nekk sàmmub alquran diirug sama dund kon bu yàlla dogalee mbir mii am te mooy ay pël yoo xam ne dañoo tëdd ba guddi ñu ñëw ci sama géttu xar goo xam ne xare yi li tax mu wut ko mooy lu may dundale daara ji yéen ñëpp xam ngeen ni dama yor daara joo xam ni dañ fay jàngale alquran fi sabilillahi taala te bëgguma dongay di yalwaani tax ma wut barabu liggéeyukaay boo xam ni poulailler lañ koy wax ma di fa yar ay xar ak ay copine la cay bàyyi ma di ko delloo ci dundub daara ji loolu la ay pël tëdd ba guddi ñu ñëw di ko dajji ma yëg leen topp leen ñu daw ba dugg ci ak kër asamaan set ma xëy dem ci këru pël yooyee di waxtaan ak ñoom ni leen ni yéen de da ngeen di ay dëkkandoo te yonent sallallahu alayhi wa daa waxoon ni dëkkandoo jàmm ca gën ba taxoon mu ni aljaar xabla daar tànnal dëkkandoo bala ngaa wut kër ma bëggoon comme yéen munu leen a ñàkk bañ a jël yëfi jàmbur waaw xanaa boog ngeen sàmm ak dëkkandoo ba baal ma fi bokk alali daara ji li nga xam ni moom day dundal alxuraan magum pël maa fa fekk xanaa bi ma ñëwee laaj laajte boroom kër gi ñu won ma ko magum pël maa fa fekk daf ne ma ikkam yow day ko baax nga ndax jamono bu nekk koñ bi yaa koy dundal ak alxuraan ah bi loolu amee la yenn ci ay doomam génn ñi yor ay jaasi ñii yor yeneen i ngànnaay wutal si ma fekk maa ngi ànd ak ñeenti donga ma ne donga yooyu daw leen ca oto ba ñu daw ca oto ba sëriñ Moustapha Ndoye di sama xarit boo xam ni lislaama nu boole mu sopp ma dayob sopp ba moom sama aajo dong lay bañ a dégg lu dul ni dana ci def lu mu mën ni ma ñëwee ma di ko jàmbat ni ko man day pël yi dañ ma sonal ci xar yi ci daara ji ma bëggoon a wut jumtukaay bu may fegee sama bopp mu ne man de amoon naa fi boo xam ne am nay këyit fetal googu ngeen di dégg am nay këyit ma ne kon nag damaa bëgg nga abal ma ko bu guddee ma man cee alerte ndax ñu bàyyi fi alal yi bi ma ko joxee ma teg ko ci oto bi bi ma ñëwee ci daara ji wàccewuma ko ci oto bi laa ko bàyyi bi yàlla dogalee ma dem doon waxtaan ak ñoom ñoom ñu réagir noone ci laa arrière ba agsi ci oto bi jël fetal gi ni leen taxaw leen mbaa ma def ko ci yéen ginnaaw yàlla te boo fetal gi dara néew ci fetalu kese la waaye ginnaaw yàlla wallaahi bu woon a fetal ga nag ni dëjël ngeen ma bu yàgg fetal gaa ma aar bu woon fetal gi kon nag ni dëjël ngeen ma ndax ñaari bal yiñ ma joxoon sax yóbbaale wu ma ko woon fii laa ko fàtte waaye fital gi moom mi ngi woon ci oto bi bi loolu amee ma ñibbi si waat ci kër gi woo commanda doon ko yëgal xew-xew bi bu gendarmerie mu xamal ma ni ma lii may wax ni commanda mën na koo seede mu xamal ma ni ma wax dëgg yàlla foofu ñun yilifatuñu ko commissaire u ndaamaatu moo ko yilif booba timis a ngi waaj jot ma ne bu ma jullee timis ba noppi kon dem commissaire ndaamaatu far yàlla dogal fi ma doon jullee timis ci jumaa ji bi ma sëlmalee rek lan ay ndaw ñëw ni commissaire ndaamaatu mooy ñëw ndeke dama faa jógee rek ñoom ñu jiitu ji ma def seeni pelent xam ngeen ni ñoom dañoo yor association bu mag ci àddina bi yoo xam ne ñoo leen di défendre ñuy def ay cotisation di teg di dajale yooyu yëpp xamees na ko ndax ñun informé wu nañ bu baax ci anam googi ci association yi addina bi ni ñuy doxe waaye loolu lépp daal jërul guddal ndax dossier baa ngi ci kanamu yoon waaye li ma bëgg a wax mooy santaat yàlla santaat Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaari tey ak sama yaakaari ëllëg ñi ma xam ci sama ndaw ba tey xam nañ ni génnuma sëñ Tuubaa sama dara mësta génn sëñ Tuubaa ay nit gaaral nañ ma billet ba tàyyi ni dañoo bëgg nga tukki booba sax sampaguma daara ji ma ni leen man réew mu sëñ Tuubaa nekkul mënuma faa am juróom benni weer yu mat yàlla man nattoo loolu ci sama bëgg sëñ réew mu sëñ Tuubaa bëgguma faa am juróom weer yu mat loolu ñi ma miin ci sama ndaw ñëpp xam nañ ko ni bu fekkoonte ni wut alal ak bëgg a tukki dong la aka ma ko jekk woon aka am nijaay yu ko jekku aka am ay bokk yu ko jekku waaye akama am mbooloo mu ko jekku waaye man sëñ Tuubaa laa tànn dëkk ak moom bu ma bokkut ak moom benn néegit naa bokk ak moom genn kër su ma ko mënut naa bokk ak moom benn dëkk bu ma ko mënul naa bokk ak moom am réew bi mbir mii xewee ci dëgg-dëgg ci la nag sëñ Tuubaa jóg taxaw ndax sëñ Muntaxaa mi ko fi nekkal taxaw